bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala bokki jullit yi maa ngi fàttali sama bopp di leen fàttali loo xam ne lu tasaaroo ci jamono la léegi muy nit ñi di ëmbalante ak mbañeel ak noonoo te dara du ko waral lu muy àdduna rekk te xol boo xam ne bu mucc la ci ëmbal kenn ak mbañeel walla ak coxar walla ak noonoo loolu bokk na ci xéewal gi gën a rëy goo xam ne suñu boroom dana ko defal nit mbañeel googu nag ak noonoo googu nga xam ne jàngoro la juy nekk ci xol lu ko nit ki daw daw léeg-léeg dañ ko koy wàll maanaam nit moo koy dugal ci loolu moo koy ji ak mbañeel ak noonoo ba mujj en tant que nit du mën a ñàkk réagir moom itam ëmbal ko lu mel noonu loolu nag ku mu dal walla ku bañ mu dal la am na noo koy fegoo bu la daleet am na nooy def ba mu wér borom baa ngi wax ne walla siina sabaru ibtigaa wajhi rabbihim ñi nga xam ne dañuy muñ bu ñu leen defee loo xam ne mën naa metti ci xol mën naa indi mbañeel dañuy muñ ngir sàkku seen payug borom wa aqaamu salaa di taxawal julli bokk na ci la ciy dimbali nit wa anfaqoo mimma rasaqnahum sirran wa alaaniya nag am nag nag di joxe ca la leen yàlla wërsëgal ci lu nëbb ak ci lu feeñ rawatina di ko jëme ci ñooñu nga xam ne ñoo leen di jëmale ak mbañeel ak noonu wa yadra'uuna bil xasanati sayyi'a képp koo xam ne jëme nga ci ñoom ñaawteef la ñuy fànqe ñaawteef ga mooy ak rafetal waaye duñ def ko def ñaawteef ñu delloo la ñaawteef ba dëgg la ki def ñaawteef moom ñaawteef la yeyoo waaye boo ko dee delloo yow itam doo tàggoog lor jam lay lor ba tey ma nga fa ndax moom it da koy delloo si waat waaye bu defee ñaawteef yow nga jëmee ci moom lu rafet loola moo koy fanq borom bi ne ulaayka lahum uqbad daar ñooñu mooy ñi nga xam ne ñooy texe ëllëg ñooy dem ca kër gu mujj ga nga xam ne mooy këru texe ga di aljanna borom bi dal wax ne idfa billati hi ahsan yow daal del fanq aw ñaawteef ci la gën a rafet fa idan la si baynaka wa baynahu adaawa ka annahu waliyun xamim waliyun xamim nee na bu ñu jëmee ci yow aw ñaawteef la ngay fanqe ñaawteef boobu mooy la gën a rafet ci loo am ci ay wax ak ay jëf ak looy def ci lu baax jëme ko ci ki nga xam ne moo jëme ci yow ñaawteef woowu nga xam ne mën naa indi ak mbañeel nee na soo ko defee day dana mujj kooku nga xam ne naroon nga ko ëmbal ak mbañeel wala sax nga ëmbaloon ko ko ba pare waaye nga not sa bakkan jëme ci moom lu baax loola day far coxor ak noono googu nekkoon ci sa xol loolu da koy effacé day mujj sa xol bëgg ko ka annahu waliyun xamim borom bi nag ne lu jafe la nag wa maa yulaqaaha illa allazina sabaru wa maa yulaqaaha illa su xadin azim kenn du ko mën a def lu dul koo xam ne muñ na ndax ñu jëme ci yow lu ñaaw ngay delloo lu rafet lu jafe la nee na daal kenn du ko man sax daal lu dul koo xam ne yàlla dimbali na ko may ko ab cër bu màgg a màgg a màgg ci wàllu muñ dafa bokk ci xéwal yi gën a rëy yoo xam ne nit ki dana ko am muy fii muy dund ci àdduna mu am fi jàmm ci ab xolam ëmbalu fi kenn aw ay ndax loo mën a am ci xeeti xéewal waaye yaa ngi ëmbal nit ñi ak noonoo ak mbañeel ak coxar xéewal googu doo ko gis ndax jamono bu ne yaa ngi tëg bët ci ñoom saa boo déggee ci ñoom ak dolliku mu naqari la saa yoo déggee ci ñoom coono walla fitna walla nattu mel na da nga caa bég loolu nag ku koy dunde moom day mujj sa dund bépp ci nit ñi rekk nga ko jëmale dootoo tal sa bopp te suñ boroom kat daa wax ne yowmal xiyaam ka fay mucc alal du fa tax a mucc mbooloo du fa tax a mucc waaye la fay tax a mucc mooy ku dikkal yàlla yor xol boo xam ne bu mucc la bu set wecc la boo xam ne dara ci ak noonoo nekku fa moo tax àjjana li muy bari bari xéewal ba lañ fa dugg suñu borom tabaaraka wa taala noonoo googu doon mën a dox diggante nit ñi li ko doon sabab ci xol yi loolu la suñu borom di dindi wa nazaana ma fi sudurihim min xillin ixwanan ala surrin mutaqaabilin bala ñoo dugg àjjana li nekkoon ci xolu doomu aadama nga xam ne mooy tax mu mën a bañe mooy tax mu mën a noonu yàlla da koy dindi ñëpp nekk ay bokk kenn du mën a bañ kenn kenn du mën a mën a noonu kenn loola mooy tax ñu mën a yëg xéewal ga nga xam ne moo nekk biir aljanna yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na bis mu togg ak saxaaba yi ne leen dey benn waay dana ñëw léegi boo xam ne ci waa aljanna la bokk benn waay daal di ñëw boo xam ne mi ngi bokk ci waa Ansaar ci ëllëg sama waxaat loolu ci ëllëg sama waxaat loolu ba muy ñetti yoon fu mu ko waxee rek waa jooju mooy ñëw abdullah ibnu amr radiallahu anhuma ne daal kii danaa fexe ba xam lu baax li muy nëbbu loo xam ne moo ko may lii daal di def ay pexe ba fexe ba mu héberger ko këram dalal ko këram mu fanaan fa ñetti fan di xool ba xam ndax day julli julli yoo xam ne yu nit ñu dul julli la wala ay kooram wala daal ay jaamu yàlla am nu mu mel ba ñetti fan yi matee gisul dara lu muy def loo xam ne wuute na ak li nit ñi def mu laaj ko ne ko waaw daal mu daal koy nettali nag loolu ne ko boo gisee ma def lii yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne woon nit dana ñëw koo xam ne ci waa àjjana la bokk wax na ko ñetti yoon yoo xam ne yépp yow yaa ñëw moo taxoon nag ma ñëwoon sa kër ngir bëgg a xam ba xam jaamu yàlla yi ngay def ne mu ne ko ah man di lii may li nga gis rek lay def waaye nag li ma lay xamal daal mooy sama xol moom ambaluma ci kenn ak coxor ambaluma ci kenn ak kiñaan lépp lu yàlla defal nit rek loola yéene naa ko ko abdullah moomu ne ko aw kay yow kay kon ci lii ci nga egge ci daraja bi nga xam ne ci nga yegg abu dujaana al ansaari radiallahu anhu bi muy bëgg a génn àdduna ñu gis xar kanam bi belli lool leer lool mu ne man de amul jënd jëf joo xam ne gën naa koo yaakaar fii ma jëm lu dul ñaar benn bi mooy man daawuma wax ci lu sama yoon nekkut beneen bi ci des itam sama xol bi ëmbaluma ci benn jullit ci ñaan wala ak mbañeel wala ak noonoo ëmbaluma ko kenn yooyu daal mu ëpp ci man yaakaar kon nag mbokk yi àdduna bii lu jar di fi noonoo ak di fi jar bañante ak di fi xëccoo ndax lu mu ca mën a doon rek day mujj loola duuta ca doon dara bu dee alal la danga koy mujj ba dem bu dee daraje àdduna la day mujj ñàkk ko bu dee mbooloo moo nekkoon ca seen biir day mujj mbooloo moom a nga génn ca kon nag yóbbaale xol boo xam ne bu mucc la mooy tax a am jàmm fii mooy tax a am jàmm ëllëg loolu nag koo xam ne dem na ba jàngoro ji dal la ñu wàll la ko ngay bëgg a noonu nit notal sa bakkan rek def lu baax jëmee ci moom tàmbalee ko ci nuyu ko may ko yitte bay boo ñu tuddale ko ñàkk jom bay boo ñu tuddale ko ñàkk fayda bay boo ñu tuddale ko ragal waaye loolu yow bu mu la tee def lu baax jëmee ci moom ndax sa bopp ngay faj da ngay faju jàngoro ji bëgg a nekk góom bi mu bëgg a indi ci sa xol loolu moo koy dindi idfa billati hiya ahsan ordonnance baa ngoog fa ital la si baynaka wa baynahu adaawa ka annahu waliyun xamim day mujj mel ne xaritub doomi day bi ko mënul ci moom moom bu melul noonu it yow noonu lay mel ci yow te itam sax bu fekkee ëmbalatoo ko dara di rafetal jëmee ci moom moom it en tant que nit dana mujj duut la mën a ëmbal aw ay wala bu ko ëmbeet duutu ko mën a feeñal duutu ko mën a feeñal kon nag mbokk yi nañu góorgóorlu ci loolu bu baax suñ boroom tabaraka wa taala bañ na lool nit ñoo xam ne dañuy ëmbalante ak noonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne jëfi jaam ñi dañ koy gaaral suñu boroom altine bu nekk ak alxames bu ne nee na mu jéggal leen maanaam bakkaar yu ndaw yi bu fekkee ñu ngi wattandiku bakkaar yu mag yi lu dul koo xam ne day bokkaale ak nag lu dul koo xam ne digganteem ak mbokkam ak mbañeel ak noonoo dafa nekk seen diggante goo xam ne diine waralu ko seeni bopp rekk ko waral seen jikkoy bopp rekk waral ñu bañante ak seen intérêt yi bopp nee na day wax ne ñii delloo leen seeni téere ba ba ñuy juboo kon nag loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax rawatina ñépp nit ñoo xam ne dañoo seq ab diggante bu dee ay jigéen ñu bokk kër bokk boroom kër bu dee nit ñoo xam ne ñoo bokk ab liggéey commerçant ak commerçant safoor ak safoor jàngalekat ak jàngalekat daanaka kenn ku nekk nga bokkal métier bokk moom mbir ak xëccoo day xaw a am ca biir ak manante bu dee manante ci lu baax moom lu baax la waaw waaye nag seytaane daf cay bëgg a profitoo di ca tabbal ca xol ya loo xam ne mën naa andi ak noonu moo tax borom bi ne wa qul li ibaadi yaqulu allati hiya ahsan inna seytaana yanzaxu baynahum waxal sama jaam ñi ne leen bu ñuy waxante ci seen diggante nañuy wax la gën a rafet ndax seytaane kat lu man ci dugal ak mbañeel ak noonoo ci seen biiri xol seen diggante loola seytaane da koy def kon nag mbokk yi nañ ci góorgóorluwaat bu baax a baax ndax kat nit ki lu mu góorgóor góorlu ci jaamu yàlla te fekk ne mi ngi ëmbal nit ki noonu ndax ku ëmbal ak noonu ak mbañeel doo ko bañ a jëw doo ko bañ a rambaaje doo ko bañ a yëddu lu nekk loo mën a xam ci moom da nga koy jéem a xam loo jàpp ne mën na ko yàqal itam boo ko defut it da nga ko koy yéene loolu nag bu boobaa jaamu yàlla yi nga doon def yépp itam daanaka njariñ duuti ca bari ndax bu ëllëgee kat mën nañ koo jël faye ko ko ci tooñ yooyu nga ko doon tooñ jëw yaag yëddu yaag rambaaj yaag yooyu yépp tax ñu jël say tuyaaba fay ko kooka kon nag yàlla nu borom bi tabaaraka wa taala defal xal bun saliim xol boo xam ne bu mucc la ci sunu dund ak bu ñuy dellu ci suñu borom tabaaraka wa taala ñu bañ a ëmbal kenn ak noonu wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain